Euh, Modi Diouf, je suis le coordinateur du comité dialogue social, mais je suis, j'ai en charge l'organisation de la FENAPES, la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants. ay ay ay ànd yu bëree bëri yoo xam ni def nañ ko ak kilifa yi ñuy joxe njàngal njàngale mi saa bu école di ubbi dinañu nu boole ci délégation bi ñun parents d'élèves donc sama kàddu gi mën naa ko yëggatu ci sama sama xarit yi Ousmane Diaw mi nga xam ni moo yore euh, euh, UNAP euh, UNAPES. ANAPES sama xarit Alphonse mi nga xam ni moo yore école privée catholique yi xam ni ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp li nu boole mooy waajur yi rek mooy mooy mooy njaboot gi. di seere itam ni ñi ministre bi dénk njawoot gi fii au niveau de Thiès wax di yàlla ñu ngi ciy waslu seen àq yàlla def na fi ñuy jaar fépp gis nañu muy mesure barrière yi. eh bien muy nettoiement mi nettoiement bi muy muy muy li ci war lépp taxaw nañ ci c'est vrai que nag li ma ci gën a bégal nag mooy ren ji mooy li ñuy ñëw à Médina Fall Médina Fall c'est le plus grand quartier de Thiès qui fait plus de soixante mille habitants demande scolaire ba elle est tellement forte que lycée bañ fa am nga xam ni c'est le seul de Thiès qui a un cycle long kilifa yi ren ñëw nañ fa ba gisal nañu seen bopp wante loolu nag laata muy ñëw muy am kilifa gi ñu dénk njàngale mi ci réew mi muy monsieur Talla jël na engagement ferme ni Médina Fall dina leen doté d'un lycée moderne loolu itam am nañ ci yaakaar liñ ci amee yaakaar mooy itam ñi mu bàyyee njàngale mi fii muy gouverneur muy autorité académique yi muy Baba Diasse muy si Arfan ak monsieur Aydara ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ñoom léeg-léeg sax dañuy kersawu sax pour gis ma parce que xam nañ mi saa ñu ma gisee rek bu ma leen nuyoo <laughs> la ma la leen di jàmbar rek mooy sama lycée ma ba tax na nag gis ngeen ko xale yi condition yooyu ñuy jàngee métti na ah wante nag métit métit wooyu yëpp mën nañ ko muñ parce que proviseur bañ fa bañ ko dénk itam mi ci mi ngi ci mi ci mi ngi def euh, ay jéego yu am solo li ci des nag mooy lancer appel mhm. euh, wéjur yi xale yi euh, cotisation yi bala maa am ñaari junni wala nangam door yóbbu gone bi loolu autorité yi yoñ yorem njàng mi levé nañ ko inspecteur nee na loolu amatul nga am ak nga am yëpp jëlal sa doom yóbbum mu jàng pour que ubbi tey jàng tey mën a ne en attendant nag ngay toppatoo pour que nag la fonctionnalité nag du du CEM ou bien du lycée. parce que mais mais mairie yi joxeegul fourniture nag ba pare kenn euh, gisuma ci tournée waaw waaw loolu moom euh, euh, bërki démb rek bi ñu ñëwee fii ci centre de formation bii wax naa ko wax naa monsieur le ministre monsieur le l' inspecteur ndi ko waaw maire yi nga xam ni sama gox bee sama doom loolu ngeen di wax compétence transférée xaw ma nangam ak nangam. ñoom lañ ko dénk te mënunoo fexe fexe fexem fekk saa bu nu rentrée scolaire doo gisub maire ah loolu nag ñaan yàlla xëy na 2023 équipe yu bees yi fii nekk wala bu dee ñoo xam ñoom la wala ñeneen ñi fi ne rek ñu jàpp ni waajur yi ñun ñu jur sunu doom bëgg nañu saabul école di ren euh, di ubbi ñu gis maire bi ci wet ñu ñu demee bu ñu école primaire bi ñu xool jafe-jafe ya fa ne toilettes yi doxul nangam ak nangam miir bi yàqu na nangam ak nangam mu xam ni liggéey bi waru maire wante nag ah euh, puisque ñun euh, suñu war suñu suñu suñu suñu suñu position ci communauté bi mooy accompagne njaboot gi rek loolu itam duñ ci duñ ci sonn duñ ci duñ ci tayal parce que nag defaluñu kenn suñu bopp la ñu def secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique et membre du du G7 loolu bi dañuy euh, fàttaliku rek suñu mbokk jàngalekat yi nga xamante ni dañoo nekkoon système bi te wàññeeku ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom xarit na àjjana ndax ñu si bëri école bi ñu jógee rek am Mamadou Moustapha amoon nañ fa benn jàngalekat boo xam ne CM2 la nekkoon yoroon euh, te yàlla def euh, Covid bi yóbbu ko ñu leen di ñaanal ñu fi jógee ñëpp te Covid yóbbu leen yàlla xare leen àjjana waaw di sant yàlla bu baax di gërëm aussi autorités yi nga xamante ñoo ñu boole ci tournée bi euh, lu ko mel ni IA Papa Baba Diassé ak IF de Thiès ville Arfan Seck ak IF Thiès département Euh, ñi nga xamante ni ak autorités yi nga xam ne étatique yi gouverneur préfet ñu ngi leen di sant bu baax ci tournée bi nga xam ne ñu si boole. donc euh, di leen wax ni rek euh, tournée bi ñu def tey visité nañu juróomi école waaye école yi ñu dem yëpp fekk nañ fa jàngalekat yi fekk nañ fa élèves yi wax dëgg yàlla dispositif sanitaire yëpp mu ngi nekk en place donc mën nañu wax ne ci loo xamante ni certitude la que conditions yi daal maanaam baax na pour njàng mi dem jaar ci yoon leneen li ñu bëgg wax aussi mooy. ubbi tey jàng tey réalité la foo dem élèves yaa ngi ci classe yi di di tàmbali njàng mi waaye li nga xamante ni mooy ñoŋal njàng mi mooy li nga xamante ni yoreel nañ ko jàngalekat yi ci ay revendication état respecté ko ndax loolu bu ñu ko deful tey mën nañu ubbi tey suba ñu nekk ci ay grève te loolu kenn ñaanu ko yàlla ndax xeex boo xamante ni dañuy wax ne état la ak syndicat yi loolu ñi ciy perte mooy xale yi ñun avant ñu nekk syndicaliste ay jàngal ay ay parents d'élèves te loolu wax dëgg yàlla njàng mi su sooxee loolu moo ko mën a soxe kon nañu état ñu ngi koy interpellé mu jël ay dispositions pour que mu ren mi vraiment mu mucc ayib. C'est Abou Beydaïri Diallo, inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département. Je parle au nom de l'IF euh, Thiès Ville, Arfansec et à mon nom personnel. Euh, Académie de Thiès, euh, visite nañu école juróomi école fépp fu ñu dem fekk nañu xale yi ñëw nañu jàngalekaat yi ñëw nañu commencé nañu jàng slogan ubbi tey jàng tey c'est effectif dans l'académie de Thiès. ci département bi. ci département bi aussi yëpp yëf yi commencé na jàngal bi commencé na. waaw di am mbégte ànd ak gouverneur ak euh, préfet ànd ak euh, parent de les yi organisation syndicale yi ànd ak euh, coordonnatrice petite enfance les inspecteurs de l'éducation et de la formation. ànd ak euh, presse bi vraiment acteurs yëpp ñu dem ci école yi dem xool ndax euh, euh, instruction yi ñu joxe woon maanaam ñu tàmbali njàngale mi tey ndax tey la ubbite école pour xale yi ndax loolu am na wala déet ñu tànn nag juróomi école ci commune bi ak ci département bi waaye fépp fu ñu dem daal li ñu seetlu mooy fekk nañ fa jàngalekat yi fekk nañ fa élèves yi fekk nañ fa sax parents d'élèves yi Euh, euh, wax dëgg yàlla matukaay yëpp jël nañ ko ba mën nañ wax ni daal en tout cas euh, njàngale mi tàmbali na ndax bi ñuy wooyee yeneen inspecteur éducation de la formation bu mbuur mbuur Mbour 2 ak Tivaouane ñoom aussi ñu ngi def tournée waaye en tout cas liñ ci am ci tournée boobu day wane ni daal wax dëgg yàlla fii ci Thiès njàngale mi tàmbali na sanq sax ñu ngi may woo ministère éducation nationale pour ma wax situation bi waaye li ma la woon wax ni loolu laa wax njàngale mi door na fii ci académie bu Thiès loolu nag li ko waral mooy euh, jàng euh, euh, rentrée scolaire du point de départ comme ni nga ko wax ci français dafa nekk loo xam ne ay jéego la processus la bu tàmbali bi école bi tëjee lay tàmbali ñu ànd ci nag gouverneur ànd ceeg préfet yi ànd ceeg autorité locales yi ak chef d'établissement yi def suñu plan d'action feuille de boo xam ne ay activités yu bëri yoo xam ne pour préparer rentre bi la loolu nag moo jur lii tey may profité nag di wax ne ren ci séminaire de rentrée bi nga xam ne ministère éducation nationale daf ko organiser daf ci am ay orientation yoo xam ne euh, ci yu bari sax waaye ñu tënk ci ñett yoo xam ne dafa am solo pour ñun am solo pour njàngale mi te jàngalekat bu ne war na ci bàyyi xel chef d'établissement directeur d'école bu ci ne war na ci bàyyi xel bi ci jiitu mooy la restauration des valeurs euh, les des valeurs et et l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté maanaam ñu defaraat jikko yi ci xale yi parce que boo seetloo fi mu nekk nii Euh, jikko yi xaw na xaw na doy waar am na am na jikko yoo xam ne daal ñu ngi koy ràññee ci suñu société xamuñ ko woon dégg nga te jikko dafa am solo ci doomu aadama doomu aadama su amee xam-xam te amul jikko bu rafet day day yàqu rek waaw euh, donc ñu ñu bàyyi ci xel en tout cas au niveau de l' académie dinañ mettre en place dispositif boo xam ne dana wàcc ci IEF yi wàcc ba ci école yi pour ñu gën a mën a euh, farlu ci ci njàngaleem jikko yooyu ci xale yi beneen bi mooy Euh, utilisation numérique xam ngeen ne xarale yu bees yi euh, internet réseaux sociaux yi euh, lu ci bëri am na sax côté boo xam ne bu xaw a doy waar la waaye ñun bi ñu gën a côté bi ñu gën a bëgg mooy bi nga xam ne day tax xale bi mën a jàng mën a ubbeeku ci àdduna mën a utiliser xarale yi ci biir salle de classe bi professeurs yi aussi mën ko utiliser. loolu tamit ci Covid bi boo ko seetloo ministère éducation nationale am na liggéey bu rafet bu mu ci liggéey canal éducation utiliser télévision rajo yi pour jàngal xale yi ci kër ga. loolu nag il faut ñu gën koo dëgëral euh, fii ci académie Thiès ak au niveau national beneen bi ci topp mooy li ñuy wax les progressions harmonisées et les évaluations standardisées mooy boo jëlee académie bi yëpp programme bi changéwul waaye dañ ko def ay pàcc yoo xam ne ci biir salle de classe yi xale yi ñooy progressé ndoo nga xam ne xale bu jógee Mbour bëgg a transféré ñëw fii Thiès bu ñëwee bu jógee bu bàyyi mbuur foofu bu ñëwee fii li mu bàyyi Mbour moom lay fekk fii nii yaa ngi dégg dina tax aussi chef d'établissement bi di gën a mën a surveiller jàngalekat yi li ñuy jàngale ci biir salle de classe yi ñuy def ay ay natt maanaam évaluation di leen natt ba pare di di di di di jo di joyanti pour pour mën a fexe xale yi euh, am niveau niveau bu baax loolu mooy progression harmonisée et évaluation à épreuve standardisée dañ ko daan def sax ñun fii ci académie Thiès depuis 2016 bi mu ñëwee de l'élémentaire jusqu'au moyen jusqu'au secondaire waaye Covid bi moo taxoon ñu xaw a sooxe tuuti mais ministère moom dafa taxaw ren ne ci Sénégal gépp bu soobee yàlla am na dispositif bu ñu mettre en place au niveau national am na dispositif yu ñu ne mettre en place au niveau de l' pour ñu mën ko mettre en œuvre